ki nga tuddee intellectuel te man wóoruma ni ci laa bokk ndax pour ma nekk intellectuel intellectuel rek ko mën a wax ndax ñoom ñoo am qualité pour wax ko donc man jàppewuma sama bopp intellectuel lu dul intellectuel dañ ko wax ki bind ci téere dama lay ñaan nga génneel ma livre yi nga xam ne nii wane nga ko sànq wa génneel ma ci benn génneel ma la page s'il vous plaît régie eh, dinañ la ko génne. waaw nañ ko génne nañ ko nañ ko génne non nañ ko génne parce que non vas-y continue dinañ ko génne. dafa am livre bu tudd nous avons choisi la république xam nga kañ laa ko bind. 2003 octobre 2003 la génn octobre 2003 ma ki Sall nekkoon ba may dajeeg moom ba may xamanteeg moom xaw ma ko xaw ma octobre 2003 laa def sama recueil de chroniques de cinquante 54 chroniques publiées li ci ëpp. ci kolonu Walfadjri tudde ko nous avons choisi la république nit ki la ni nous avons choisi la république mënul def politique lu jéggi loolu cinquante chroniques xam nga lan moo ko tax a jóg amu ci fenn fu ma saagaa nit amu ci fenn fu ma xase président Ablaye Wade amu fi fenn fu ma xase ministre am wala fu ma xase gouvernement am lenn rek laa ci wax njàngum Sénégal jamono yi ab Ablaye Wade sooxe na suñ ko bëggee jooyanti naka la ñuy def. mais mais mais mais tuuti ma pare ah non da nga ma bàyyi ma pare. dellu si da nga ma bàyyi ma pare. Ah, ah, nga bàyyi ma ma pare. Mhm. mbay mi suñu ko bëggee suqali fu ñu jaar industrie jéego yiñ ci war a def pour jox ko ndëgër laay ci réew mi ba mu mën a gàttandu réew mi ci wàllu koom naka la war a tëddee jigéenu wérul yi. ñi toll. vous n'allez pas me citer les 54. non je ne non dama lay wax dama lay wax les sujets phares de. Ah? dama lay wax rek quelques quelques sujets phares. non non je je veux pas qu'on s'éloigne dama bëgg nga wax ma. même ma ñëw lan moo tax ñooñu mënuñu nekk. président yow nga ne yow. mën na nekk président waaw yow ma nii. ah loolu laa bëgg nga wax ma ci loolu laa lay tontu. Mm-hmm. dama lay tontu nii. pour nga mën a nekk un président la république war nga am ñaari expérience war nga am expérience d'opposant mu metti lool nga mel ni ganaar gu ñuy sode ci fuur ndax xeex régime boo xam ni jàpp nga ni fa mu jëmee Sénégal baaxul def naa ko fukki at ak ñaar. Abdoulaye am na expérience. même même ma ñëw. am na expérience. même ma ñëw parti xam nga lan moo nar a ñàkk xam nga lan moo nar a ñàkk sunu sunu sunu sunu waxtaan mooy nga toogal fi ku fi nekkul. toogalu ma fi kenn je vous donne des exemples. non dafa ma ñëw même ma ñëw a subi les foudres d'un régime. même ma ñëw pendant qu'il était opposant ma ñëw. Ah. man Abdoul Aziz laa lay wax ki nga invité moo lay wax ni. def na 12 ans d' opposition te doo ko dindi man loolu laa wax keneen ku def vingt 24 ans d' opposition yaa xam waaye ci sa 24 ans d' opposition yooyu loo bind lu nit mën a teg loxoom koo fi tudd wax ma ban téere la bind bu mu taxawoo Sénégal ci xeltu. Macky Sall de premier téere bi mu bind. bi mu nekkee président de la République te teewoo ko nekk président même ma ñëw même ma ñëw dama ñu la. te téere ba sax bind ko xam naa dañ ko koo bind. dama ñu la ki def oppos opposition. il faut que ci biir opposition mu am lu mu teg ci loxo askan bi lu ko askan bi di xoole ni kii bi mu nekkee ci kujje gi moo fi bind lii moo fi wax lii moo participer ci débat man diiru fukki atak ñaar ma nekk ci kujje gi ci opposition amul débat yow boo ma seetaanul am na débat yoo xam ni sax yow yaa ko modéré yoo xam ni dama ci participer mais participer ci débat contradictoire amul lu ko gën di politique ci àddina parce que débat contradictoire société yi si yi si luy yëpp yi jëm kanam yëpp débat contradictoire waaw benn bi nga ne day nekk kujje beneen bi mooy fukki at ak ñaar yoo xam ne ni yaa ngi ci cabinet fi ñëpp bëgg a nekk tey dem toog fa muy cabinet président la république kon boo ne yow xam nga lan mooy présidence de la république ñu war nañ ko gëm man kan mooy taxaw ni Abdoul Aziz Diop mi xamul dara ci présidence de la république ba ni dafay wuuti ki fi newoon mas nga fekkee réunion de sécurité même tuuti ma ñëw même tuuti ma ñëw réunion de sécurité boo ko dee laaj de sécurité boo dee laajte da koy laaj koo xam ne nii am na habilité fekke ko waaw mais waaw mais man awma en tant que conseiller spécial je ministre conseiller awma habilité. je sais di fekke conseil. nekk ci cabinet président de la république taxul nga. matal même ma ñëw taxul nga xam ni nguur gi di doxee. même ma ñëw même ma ñëw. ah ma ñëw. kii xelal di joxoñ ñiy ñi nga xam ne nii fa nguur gi war a jaar pour génn ci yenn tolof tolof tolof yi ki leen koy joxoñ ba ñu jaar fa am ci mu am jeexital gis nga président Macky Sall tey su yàlla dogaloon mu toog fii ma toog nga ne ko dam ñu bëgg yow président Macky Sall ci sa aqulaahu taala maanaam aqulaahu taala nga wax sa conseiller bi ban ngëneel nga xam ci moom su waxee ci man ñett yoo xam ne nii du ngëneel ma bàyyi li may def su fekkee ni firndewu na dama ne la kiñ ni mën na yor réew kay togg la muy togg jébbal ko ki ko fal def ko ministre te bu ca jaaree mu am jeexital ñeel askan bi moom bu nekkoon place kooku dana fa mën a jaar wala du fa mën a jaar. mais mais mais mais xanaa ko yow tu as plus de chance que Amsatou Sow Sidibé xam nga. y a de membre du cabinet présidentiel des ministres conseil après dañoo démissionné parce que nee nañu dañuy bind kenn du leen faale euh, dañuy proposer des chose il y a pas de retour mu mel ni la tradition là-bas c'était que les conseillers dañu leen tab conseil nii rek pour te caser quelque part mais du ñu jëriñoo sa sa xalaat am ak sa xam-xam am na ñu gedd ndax loolu. xam nga ma wax la benn affaire keneen koo tudd muy membre du cabinet sama yoon ci moom. la mu séqoon ak président la mu ko liggéey la mu ko ñàkk la liggéey sama yoon newu ci man li ma liggéey lay wax man Abdoul Aziz bi ci mujj ci li ma liggéey bi ci mujj xam nga ci lu mu aju ci napp gi ku nekk xam na ni napp sooxe na ci Sénégal dama lay jox benn fitne rek ci ni man mii xelal kii bëgg a joyanti napp mën na joyanti napp note bi ma mujjee bind ñaari not la benn not la en deux volets muy ñaari note note bi njëkk bi note introductive la ci nappu Sénégal tolluwaayam ak juróomi ñaari région yi nga xam ne ni ñoom ñooy région maritime ñoom ñooy jëfandikoo lu ëpp ci wàllu napp te mu aju ci géej gi loolu moo taxoon nag kii note bi jóg gis na boobu première partie bi bi ko président Macky la jotee daf ko imputé daf ñu ko daf ñu ko imputé waat ñun sunu pôle peche économie maritime daf ñu ko imputé waat bi ñu ko imputé waatee daf ñu wax ni bind leen le ministre de la pêche et de l'économie maritime pour li ñu dëxëñ ci napp bi mu jëfandikoo ko parce que bokk na ci liy joyanti napp muy benn bañ fa jógee ñu toog ab diir loolu gisuñu gisuñu ci jeexital ba ñu bindee note boobu engagé le ministre de l'économie maritime et de la pêche ci mu joyanti napp gi ci anam boobu jóge ci sunu xel ci lu ñu yàlla baaxee ndax mooy dey jàmm bi xëy na ñàkk koo jëfe moo tax ñu dellu siwaat ci ñun soññ ñu ni ñu léegi dañu bëgg lépp lu aju ci pêche artisanale ñiy dem ci géej gi ci wàllu gaal ak lépp lu aju ci pêche industrielle ñiy dem ci géej gi di jël ay bateau dañu bëgg ngeen def ci léegi taxaw seetlu mais mais mais même même ma pare. da nga may bàyyi ma pare non il faut que ma bàyyi pare non il faut que ma pare. li may wax parce que askan waa ngi ñuy déglu. production intellectuelle. non des conseils fournis à je termine je euh, termine. des livres yow daal je termine je termine je termine je termine. le cinquième président de la République je suis le meilleur cinquième président possible. mais comment ça vous êtes moi terminer. da nga may wax la lu tax su fekkee ni da nga fi toogal ñeneen. te mën même tuut non même tuut rek même tuut ma wax la même tuut ma wax la amal boo amee man su ma amee ngoru déglu la nga poser sa question amal ngor gu ëpp dangay c'est que yow da ngay dem da ngay dem da ngay dem damay leeral damay leeral non li nga leeral yow yow da ma bëgg da nga ma ni ah. danga ma laaj yow ban expérience nga am bu tax nga ni war nga mën a nekk président man ni la expérience ñaar la bi nga am ci kujje gi doo ko dindi bi ma am ci nguur gi doo ko dindi bi ci mujj kiy doxal économie pêche maritime su jaaroon man fa ñu ko jaarale man pôle bi ma nekk ci bopp bi man ñu ko fa jaarale te jaaru fa te waroon faa jaar parce que dañ ko ko joxoñ te président moo ko ko joxoñ te taxul mu jaar fa man su fekkoon ni maa nekk ministre de la pêche et de l'économie maritime kenn du ma wax jaar fa parce que fa lay jaar te duma sax sonal président ci fa lay jaar dama ne la loolu moolu loolu laa la wax nii hmm. loolu ku ko mënal réew mënoon nga ko lu ëpp loolu